dafa amoon góor gu bëggoon lekk ba ñépp xam ko tudde ko moor foqale mu am toolub dugub bu rafet di ko toppatoo ba mu ñor mu di ko wër xool ba sedd guy noona mu ne ci xel ma tool bii daal nii mu rafete duma ko bokk ak kenn daldi ni loolu moom xam naa ni ma koy defe moor foqale xaar ba mu guddi mu dem ci tool ba gas fa pax mu xóot te yaatu ba nga ne lii lum doon ci ëllëg sa mu jël paaka cin ak kook yóbbu dugal ci biir pax ma nga xam ne mu nga doon saamandaay maanaam di niroo ak dëkkuwaay am néeg ca fan ya ca topp mu jël gën ak kuur dugal ci biir néegam ba moom Mor Foqale ba mu ko defee Mor Foqale dee dellu waa dëkk ba defe ni dafa dee ñu daldi koy waajal fekk booba nee na woon su génnee àdduna maanaam su dee nañu ko yóbbu ca toolu dugub booba ma nga xam ni daf koo bëggoon lool suul ko fa ca la ko waa dëkk ba yóbboo ca tool ba daldi ko fay suul daldi di woññeeku ku ne dellu ci say soxla ba ñu demee ba jant bi so Mor Fuqale Mbay Mbay la santoon daldi génn ndànk daldi di ne xaaral ma dem ci sama dugub ji ca la demee ca dugub ju ñor ja dagg ca lu baree bare bare tànn nag gub ya ca gënoon a rafet noona mu dem yóbbu dugal ca néeg ba mu gasoon daldi tëdd nelaw ca ëllëg sa mu taal ab taalam tàmbalee togg di dëbb dugub ja mu nga naan du duñux te kay duñux bàyyi deena nde lottul du njub xorom ba ca kër ga laay xalaat nde du lenn fekk na bés bu ne gone yi ñëw ci tool bi di ko wattu ngir dàq picc yi ñëw di ko lekk te ay coy maanaam ay seku gën ca bari ñu nga naan xaa coy wàccal xaa xa coy wàccal ca la xale yi déggee seen baay mu naan du ñux te kay du ñux bàyyi dee na lootul du njub xorom ba ca kër ga lay xalaat ne du lenn ñu daane lii moom gën a doy waar xale yi fexe ca tool ba daw wuti dëkk ba ba ñu àggee ñu ni seen yaay dañu dégg kuy woy ca tool ba naan du ñux te kay du ñux bàyyi dee na lootul du njub xorom ba ca kër ga lay xalaat ne du lenn yaay jënd leen jooju wax ngeen dégg ngeen ko ñu ne ko waawaaw ndax loolu dëgg la ñu ne ko waaw soxna sa di seen yaay boole leen ak seen nijaay ngir ñu dem seet ndax li ñu wax dëgg la ba ñu demee ba àgg waaj a déglu dégg Mor Mbay muy dëb naan du ñux te kay du ñux bàyyi dee ne lootul du njub xorom ba ca kër ga lay xalaat ne du lenn waaj a jaaxle ba mbubb ma ñuul kukk mu wër ko ni baatub nit la dégg muy wax mel ni luy jóge ci biir suuf noona mu dellu ci dëkk ba nettali la mu dégg ñoom ñépp fàq ndaw sa jiitu ku ne yor sa ngànnaay ba ñu ëgsee ci tool bi ñuy wër di wër di di wër ba gis buntu paax ma ñu dugg fekk saawaay muy dëbb di woy ñu ne ko a ndeke yow déewoo dara jotu la jabar ji taxaw na leen naan billaay lii mooy gàcce ca lañu ko jiitale waat ak gàccam gu réy ga mu gàddu cinam ak kuuram ak gënam ñu koy joxar bi ñee di ko xas ñele di ko ree rangooj ña bàcc ca kanam ga ñu jëmale ko ca dëkk ba bisub keroog ba tey lañu ko ñemee wooye ci lu wér moor foqale mbay di ko dàkkantele kaña ndax li rab woowuy dugal lépp lu mu jële ci nit ñi ci pax mi muy gas le baaxul waay fii la léeb yi doxe tàbbiir géej bakken bu ko jëkk a fóon tàbbiir biir